nous dañu war a football ak équipe boo xamante ne aujourd'hui euh, dañu ressuscité donc dafa mel ne nga waroon dee rek ñu ñu kii la nga dekki <coughs> te nee nañu euh, boo dee ah, boo dekkee la la la taxoon dee da nga ko moytu ah. donc mooy ils viendront avec avec des ambitions mm-hmm. une ambition légitime mooy battre le Sénégal poussé par par le public mais foofu la secret match bi nekk la clé du match c'est foofu lay nekk. c'est quoi justement. Euh, la clé du match aujourd'hui mooy la possession. la possession dañuy wax ne football ki est maître du ballon et maître du jeu. e -hmm. et dans ce match-là il faudrait que Sénégal éviter di dellu ginnaaw il faut que ñu jël suñu bloc bi ñu yéegee ko. Mhm. pour éviter Côte d'Ivoire mu jël confiance ci match bi et ça c'est un élément tactique important donc foofu laa gis ne war nañ ci mën a mën a jouer maintenant. c'est un match boo xam ne il faut il faut il faut garder les nerfs il faut être très solide. Mm-hmm. parce que nekk ci stade boo xamante ne presque le public est est parce que di nga gis lu ne il faudra il faut pas qu'on s'attende à ce que ñu ñëw di di rayante ak Sénégalais yi. ils vont y aller. ils vont supporter leur équipe à fond. Mm-hmm. il faut avoir des nerfs solides et je pense que les garçons que nous avons ont, ont l'habitude de certaines compétitions. mais c'est une autre réalité. Il y a des jeunes joueurs qui ont intégré le, le groupe. Est-ce qu'ils ont vécu euh, une fois dans leur vie cette situation où ñu ngi jouer euh, dans un en tout cas tournoi boo xam ne le pays hôte la ñuy dajal loolu yëpp c'est des c'est des éléments qui qui vont peser sur la balance. Mm-hmm. et à c'est à Aliou quand même de de de motiver son équipe et de les mettre sur sur la route.